ñoom ñaar jéggi na na jël na Tapha Tine na KO Sa Thiès jëf mbokk yi ñuy topp ci Leewtoo TV mbégte ak contentement la ñuy am saa suñu jàkkaarloog yéen ngir fas yéene ñëw jukki leen li gën a fës ci ëttu yéenekaay yi bind ci wàllu làmb ajaratu Ndeye Mbacke Diop gannaaw ba ñu sant yàlla julli ci yonent bi sant suñu ñaari waajur sant suñu sëriñ sant ñi nga xamante ni bii dañuy jàpp ci combat bi ñu ngi leen di bégee amati mbégte bu baax a baax ziar naa la. kon daal di sant sama sëriñ sëriñ Bassirou Mbacke borom dëgg mectar bi di kontaan moom lool. di ko ñaanal gudd fan ak wér gu yarama ah, ca noonu nag damay daal di dugg ci journal bi waaye ka tax journal bi neex ba tax ngeen koy mën a seetaan chaque jour. Mm. fii ci Leewtoo TV di Iwil Jador. ak kan. Kayaar. ayca loo wax ci Iwil huile gérôme mu ñu indi diwlin mu sell boobu baax ci xale baax ci mag sans cholestérol indi ñu pat bi nag. Mm-hmm. gamme complet xam ngeen ko. doo leen ko wax. waaw baax ci xale baax ci mag baax ci waañ. waaw dama ko jëlee utiliser ko bàyyi waa kan mooy toog. ñu ne déet mu andi ataaye j'adore andi vermicelle j'adore mm-hmm. andi macaroni j'adore cey Abdou Aziz Aly Al Amin. kenn du moom yàlla na jàmmam yàgg wante bu leen fàtte tamit au Kayar ndox mi nga xamante ne bii moo ñuy aar. set sell neex ba pare sénégalais yépp taamal ko seen bopp di ko jëfandikoo moom tamit bokk na ci ñi nga xamante ni bii ñu ngi ñuy gunge ci seen revue de l'arène bii kon daal au mooy ndox ñuy aar wante huile j'adore tamit mooy huile bi nga xamante ne bii moom moo dàq ci huile yi macrona ba spaghetti bi ak vermicelle ba kenn du lam-lamee seen neexaay. muy noonu ba tax damay ne saraax ci journal suñu lam kam xëy na ci xëtam mu njëkk. Balla Gaye numéro 2 Ama Baldé en France Reug Reug Gouye Gui aux États-Unis que cherche t à l'étranger maanaam mbër yooyu noonu la ñuy xool fii ca bitim réew Mbaye Babacar. mu mel nii ki nga xam ne moom mooy Mohamed Ndao Tyson moom moo leen won yoon wi bi mu tolloo ci làmb da doon def bu amee combat dem États-Unis d'Amérique bu ñëwee andi forme ba nga xamante ne bii macha allah ñëppay ñëppay d'accord moom moo wane yoon wi moo xàll yoon wi mbër yi nga xamante ne bii. Euh, ñoo nekk ci làmb ji fi mu toll nii tamit di topp tànk yooyu nga xam ne moo xam ndaw Ndao Tyson defoon na ko euh, Balla Gaye ak ki nga xam ne moom mooy Ama ña nga fële ca euh, Paris wax nga ko Reug Reug moom tamit ma nga États-Unis ñu gis mbëri suñu demee ba ñëw dañuy gis journal bi moo ko bind de xam nga ñun lantinoor lañu du ñu téye ak diw journal bi nee nag ñu gis mbëri en général bu ñu demee Europe ba ñëw bien vrai que dinañ andi forme mais tamit dinañ gis ñu andi karaw yu gudd ba pare andi teint ba nga xamante ne bii dafa am lu ñuy diwoo foofu xaw ma daal noo ko waxee sax nga ne environnement bee doonul benn. doonul benn billaay mu ngi noonu. climat yi du benn climat yi du ñu benn. ca mhm. noonu nag day dem ci combat ba am diggante Gris 2 ak Abdou Diouf dimanche bii ñu ne 160 war a concentré wu jàkkaarloo fii ci arène nationale Mbaye Babacar. diggante Gris 2 ak Abdou Diouf du combat ba nga xamante ni bii ki nga xam ne moom mooy Abdou Diouf suñu làmb nee na moom moo ëpp expérience ci wàllu làmb moo jiitu ci làmb te it moo ëpp li nga xamante ne bii moom mooy xam-xam ci wàllu ci ci moo ëpp xam-xam ci wàllu làmb loolu la suñu làmb bind mais nag comme ni koy waxee garab ci kaw lay fekkante Gris 2 ñëw na ba wane ay preuve am ba jot a bëre ba mën a bëre ak moom kon fi mu toll nii mu nekk combat ba nga xamante ne bii combat bu nar a neex la war a am suba incha allah bu ci yàlla àndee ñuy xaar expérience ak li nga xamante ne bii moom mooy xale ki nga xamante ne bii moom mooy Gris 2 suñu làmb nee na mbër la ma nga xam ne bu ñëwee dafa war a jël ay responsabilité def différence su combat bi. def différence ba tax na suñu jógee arène nationale Iba Mar da jëm Iba Mar da beneen combat ba fay am diggante Mame Balla ak Gouye Gui cey boobu la combat loolu journal bi bind tey jii. patron ak production moo ko taxawal ñu koy wax Assane Ndiaye le golden boy de Baol production ma nga noona dafa bëgg boppam nag bëri titre mm. ma nga noona Assane Ndiaye moo taxawal boobu di espoiru làmb suñu làmb euh, suñu làmb tey tuddee ko la lion de Bawol di mbër ma nga xamante ne bii Bawol Bawol yépp a ngi ci gannaawam yaakaar ko mu mu mu nekk ka nga xamante ne bii poulain Tapha Tine la war a bëre ak ki nga xam ne xamante ne bi nag moom mooy Mame Balla Mame Balla di di comme li ma wax ci Abdou Diouf sànq rek moom tamit di di di ndaanaan ci wàllu làmb daje ak ndaanaan yu bëree bari jëflante ak ndaanaan yu bëree bari suñu làmb nee na combat boobu mën nañoo gis combat bu neex wante mbay guy gi daf ci dolli ne maam Balla amul benn sens ci man maa ko gën a nekk xele maa ko gën a frais maa ko ëpp doole maa ko dàq bëre te su ma ko jàppee dinaa ko ko wan. te noonu nag laataa ñuy dem ci Abdou Diouf ak Gris 2 rek tey jii ci arène nationale qualifié numéro 2 dina fa laal ak nga xam ne mooy Gérard bu Fass combat boobu rek. Mbaye kar ñu ko tuddee réglement de compte ba. règlement de compte la ndax ñoom ñaar ku ci nekk da ngaa war a ñëw wane waat leneen lu bees wane waat beneen xar kanam li fay macha allah am bindu mbër. am li nga xamante ne bii moom mooy taxawaayu mbër général tamit macha allah moom tamit bokk ci écrit bu mag écrit ba nga xamante ne bii ñaari écrit sax la ñu boole muy Fass ak Ndakaaru ñaari écrit yu mag la ñu boole def ko muy benn écrit ñoom berkat yi nekk fa ñoom Ibrahima Mbaye nekk fa ñoom Soose nekk fa di écrit ba nga xamante ne bi ndaanaan bu fa gemboo boo ñëwee ci làmb ji war ngaa mën a def différence général nag war a waree foofu war a jàkkaarloo Koli Koli mi nga xamante ne bii ñeewul kenn ci bëri mën naa bëri te am na kattan ñu nar a gis combat ba nga xamante ne bii foofu tamit combat bu nara neex la kon daal mën nañ jàpp ne weekend bi entre tey ak suba combat yu combat yu neex a ñuy xaar ca noonu nag les reliquats de Sa Thiès et Moussa Ndoye par le CNG kii di Issa Pouye nag perd cinquante millions tandis que Alioune Seye numéro 2. Mhm. perd 100 320 millions. 320 mille francs bu dee 320 millions woon waaw mi ngi noonu ki nga xam ne moom mooy euh, Sa Thiès ak Issa Pouye mhm. ñoom ba léegi jotaguñu seen ay reliquats. Mhm. loolu la journal bi bindal li waral loolu nag xam naa CNG dafa am lu ñuy càmbar ci ñoom ñaar te pareeguñu. mais heure bu ñu paree rek daañu leen woo jox leen li nga xamante ne bii moom mooy seen reliquat mais am naa yaakaar ne du ñàkk CNG tamit am lu mu ca comp mhm. comme ni mu compee ci euh, euh, Issa Pouye ak ki nga xam ne moom mooy Aliou Seye wax nga ko sànq ki nga xam ne moom mooy Issa Pouye comp nañ ci moom juróom-ñaar fukki junni nañu comp ci moom ki nga xam ne moom mooy Aliou Seye numéro 2 comp nañ ci moom juróom benn fukki junni ak ñeent muy la nga xamante ne bii euh, metti na ci mbër yi mais tamit mbër yi xam na réglement bi lii boo ko defee am avertissement lii boo ko defee dan lay dagg soo bañee loolu ñu laal sa xaalis war ngaa mën a moytu loolu mais mbër moom liñ koy waxee lépp lu mu def pour am ndam rek da ko koy jaral. da ko ko incha allah ca loolu nag sam samedi leen jëm tey jii nii Mbaye Babacar dox ci diggante Cheikh jaan Niang ak Ndongo Lo la ko journal bi titré nag mooy choc des ndaama technicien ay ba ñaari ñaari mbër yu gàtt lañu nekkuñu ay njool yooyu noonu ci làmb ji ba pare nekk ay jëndee nag ci wàllu làmb Cheikh Tidiane Niang lu ñuy teg ci bëri simple rek loxoom tegu na ca. laal na ko jël na ko macha allah eh, yàlla na yokk mi ngi noonu. Eh, Ndongo loo tamit nekk mbër ba nga xamante ne bii dafa nekkoon ci benn écrit jóge fa ñëw ci benn écrit mi ngi nekkoon écrit Sandia école de lutte Sandiambo jóge fa ñëw école de lutte sàkku xam-xam bi nga xam ne. suñu papa père Ibrahim Diaye moom moo ko moo ko jiitee ñu koy ñaanal suñu borom guddal fanam yàggal taxawaayam. Mm. mu ne nag dafa jël combat bi ngir. am ci ndam jël ndam li jox ko suñu papa Père Birahim mu nar nekk combat ba nga xamante ne bi combat jinn la combat ndaanaan la waaye ñoom ñaar ñëpp ay mbër yi digg doomu la suñ neexee sax ñu ne ay ndaama lañ ay ndaama lañ mu ngi noonu nag la gars yi doon xaar li fii ci Gambia people face to face ba naroon mooy Ama Baldé combat date date face to face boobu nag reporté nañ ko mais ultérieurement lu ci mën a am rek dinañ la ko waxee insha allah ak euh, reporté nañ ko wante jàpp guñu kañ lañu koy defaat ki taxawal boobu la komba di euh, Ligue Nicolas xam na ne fan yi passé dama na foofu ca banjool ngir waxtaan ak autorités yi nekk foofu ca Banjul ngir mën a am euh, fu mu ko defee ak jour bum ko def mais dafa mel ni nag loolu mu doxi woon gàllankoor daf ci mujjee dugg ba sottiwul kon daal mën nañoo jàpp ne ñi doon xaar Modou Lo ak euh, Ama Balde foofu ca Gambie mën nañoo neggandiku ba ci kanam ndax face to face booba dañ ko annulé. dañ ko annulé ñu annulé woon seen i combat ndax dañoo gaañu woon ñëwaat nañu. les blessés de retour kii di Mama Lamine ak a de Balla dellusiwaat na ci jàmm ak salaam. Mama Lamine ak Fils de Balla dellusiwaat nan euh, bu ma commencé waat seen ay entraînement mhm. ki nga xamante ne bii moom mooy Mama ñoom ñaar ku ci nekk am adversaire bu mat adversaire nag ndax garga mbo garga deux lañu war a dajal ak ki nga xam ne moom mooy général bu Malika Mama Lamine garga deux la am. ki nga xam ne moom mooy fils de Balla am général Malika nekk ay combat yu neex mu ne Maama Lamine gis nañ ko fële nga xam ne mooy face to face bi Siteu doon def ak Papa Sow ci ca stade Iba Mar Diop mu ñëwoon gunge ko ànd ak moom ñu gis ne kon fi mu toll nii reprendre na li nga xamante ne bii moom mooy ay entrainement ki nga xam ne moom mooy Garga 2 tamit ñu gisoon ko fële sa stade Iba moom tamit mu ñëwoon ànd ak Youssou Ndour benn xaritam ba nga xam ne doon na bëree foofu noonu ñu laaj ko mu ne moom pare na promoteur bi rek lay déglu ngir mu jàppaat euh, ab date ñu mën a bëree ak ki nga xam ne moom mooy général Malika kon daal mënoonoo jàpp ne mbër yi amoon plaisir fi mu toll nii reprendre nañu seen ay entraînement mu ngi noonu nag arène les arènes lañ jëm le la muy xam ne ci xëy bu njëkk Eumeu Sène tombe deux fois Tyson 2 méconnaissable la cycle bu bi nag moom fin dem nañ ci fin Mbaye mu mel ni écrit boobu ñuy wax Tay Shinger dof du wër te nga xam ne Eumeu Sène moom moo ko jiitee ñu ngi ci ay ñu ngi ci crise mën nañ koo waxee noonu ñu ngi ci ay tolof tolof gannaaw ba ñu nekkee première ci écrit yi nekkoon Sénégal yépp atum 2013 jàpp 2014 écrit de écrit écrit Tay Shinger ñoom ñoo jiitu woon ci écrit wante li ñu gis jamono bii mooy Eumeu Sène dafa tegle ñaari défaite dafa teg leen li nga xamante ne bii moom mooy ñaari défaite euh, euh, Tyson 2 di mbër ma nga xamante ne bii dañu gis Tyson 2 bu kenn xàmmewul Tyson 2 mais connaissable la ñu wax Tyson 2 ba nga xamante ne bii dafa ñëw combat bi passé ak Franc Franc humilier ko mu nekk combat ba nga xam ne amateur yu bëri bett na leen kon mën nañoo jàpp ne écrit boobu di écrit Tay Shinger euh, mu ngi ci ay tolof tolof gannaaw ba fa Jordan jóge ak ki nga xamante ne bii moom mooy Eumeu Sène junior Khadim Ngom rakku Eumeu seen moom mën nañ jàpp na moom dafa tukki. génn làmb ji. waaw Khadim Ngom moo nekkoon ka doon bëri Baye Mandiaye te du ko dóor ko dóor yu métti. waaw boo ko boo ko xoolee xool Eumeu rek xam ne euh, moo ko Eumeu am na lu ñu bokk. am na lu ñu bokk mu ngi noonu dama koy jaajëfal bu baax moom Mbaye Babacar lan ngay tàggatoo. jaajëfal ñëpp dig leen daje incha allah bu ci yàlla àndee euh, suba ak jàmm wante tafaatin booy ñaa bu leen ko fàtte. ñi ko bëgg a seetaan nekk bitim réew comme ni ma leen koy waxee mën nañoo jënd seen page PPV ci 3W point lambdiaspora point com daal di jënd li nga xamante ne bii moom mooy seen pass bu fekkente ne bii kenn nit moo ko bëgg a seetaan mu ngi koy jëndee 6 virgule 99 euros fi mu toll nii nag Ndeye Mbacke dañu nekk ci euh, prévente yi maanaam ku jënd sa pass PV vi avant lamb ji téeméer bu ci nekk danañ la ci wàññil fanweeri dërëm. réduction bi daal bari na. 30 pour cent la macha allah. macha allah mu ngi noonu nag waaye laataa combat bi le 8 août. face to face dina am ñi ci ñu koy waajal bu baax a baax di ngeen gis lu neex a neex a neex bu boo ñaar day toog tafaatin toog lu ci waaye na moo dafa gis ko dama ko dama leen jaajëfal bu baax jaajëfal Baye Babacar bi ma toogoon jaajëfal sama équipe technique bi sama caméra bu ma nii Fama Yacine Fall damay bég ci yéen bu baax a baax noonu laay def jox leen dig daje lundi incha allah leen ñaanal jàmm te di ko sàkku ci yéen jaajëf